à Monsieur le Président de la République du Sénégal. Monsieur le Président, le temps est une donnée critique dans la gestion d'une crise, surtout quand il s'agit d'une crise sanitaire aussi contagieuse, violente que meurtrière. Monsieur le Président, pourquoi le Sénégal est parmi les rares pays en Afrique de l'Ouest à subir une troisième vague de la COVID-19 Comment se fait-il que notre pays, Monsieur le Président, et quitter la deuxième ou la troisième place au niveau mondial lors de la première vague pour se retrouver bon dernier en Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, en termes statistiques, est-ce que vous avez le pourcentage de Sénégalais infecté au coronavirus après avoir été vaccinés Monsieur le Président, savez-vous que dans certains centres de santé de Dakar, les services de maternité ont été fermés pour laisser la place aux malades du coronavirus. Monsieur le Président, les zones de tampons dans ces centres de santé manquent de tout. Pas de matériel de réanimation, pas d'oxygène, pas de masque à haute concentration, pas de manodétenteur, pas de saturomètre. Et le pire, Monsieur le Président, c'est le manque d'équipement de protection individuelle pour le personnel de santé. Monsieur le Président, Savez-vous que ce brave personnel de santé attend toujours les primes après les vacations dans les CTE en 2020 Les médecins, les infirmiers, les brancardiers, ambulanciers, techniciens de surface et laborantins sont au moment où je vous parle acculés, démotivés, contaminés et Monsieur le Président, il y en a même qui périssent dans cette troisième vague de coronavirus. Monsieur le Président, savez-vous que du matériel respiratoire est loué à domicile par des privés sénégalais. Pourtant, nos structures de santé manquent de matériel d'assistance respiratoire. Quel paradoxe Monsieur le Président, quelle est la stratégie du ministère de l'Action sociale et de la Santé en cas de saturation des hôpitaux et des CTE Monsieur le Président, savez-vous que les résultats que nous recevons chaque jour ne sont pas ceux de la veille comme on le prétend Les laboratoires en charge des tests accusent entre une semaine et dix jours de retard dans la délivrance des résultats des tests Covid-19. Monsieur le Président, pensez-vous que nos compatriotes doutent de l'existence de la maladie Non, Monsieur le Président. C'est plutôt les paroles des gouvernants que vous êtes qui ne les rassurent plus. Monsieur le Président, Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les CTE ont été désinstallés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, alors que l'Organisation mondiale de la santé, déjà en novembre 2020, avait lancé l'alerte sur l'imminence d'une troisième et même d'une quatrième vague Monsieur le Président de la République, pouvez-vous nous expliquer comment, en pleine tempête, Plusieurs collaborateurs du ministre de la Santé ont soit quitté le navire ou sont carrément en retrait. Je peux citer Dr Aloïse John, Dr Boussou, Marie Khémès et le professeur Seydi, qui d'ailleurs souvent prend le contre-pied du ministre sur ce qui concerne des chiffres qui sont annoncés. Monsieur le Président, savez-vous que le Sénégal fait face à une autre pandémie plus violente que la Covid-19? Monsieur le Président, Savez-vous que la corruption, la surfacturation, les livraisons fictives et les détournements de deniers publics plombent tous les efforts de développement pour notre cher pays Savez-vous, Monsieur le Président de la République, que le comité de force Covid-19 dirigé par le général François Ndiaye n'a rien vu sur les manigances, les surfacturations, les livraisons fictives concernant le matériel médical dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Monsieur le Président, savez-vous que les 250 lits d'hospitalisation exposés devant les caméras lors de la première vague de Covid-19 au Sénégal n'ont jamais été achetés comme on le prétend, mais plutôt empruntés à l'époque à la société Ellipse Project, maître d'ouvrage des hôpitaux de Kaffrine, de Sédhiou, de Kédougou, de tout Touba. Allez savoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, êtes-vous au courant qu'un de vos ministres lié à la gestion de la Covid se serait offert deux villas aux Almadies et à Yoff? Monsieur le Président, vous avez l'obligation de stopper le corona business. Monsieur le Président, savez-vous qu'en pleine troisième vague de Covid-19 au Sénégal, le ministère des Finances vient de signer un marché de 40 milliards de francs CFA de gré à gré avec un homme d'affaires bien connu du régime de Maître Abdoulaye Wade. Ceci dans le programme d'électrification rurale du programme PUDC. Allez savoir ce qu'il y a derrière, Monsieur le Président. Ce même sieur Gueye, au début de la Covid, rappelez-vous, avait obtenu un autre marché de gré à gré de 150 milliards de francs CFA. Je dis bien, Monsieur le Président, 150 milliards de francs CFA avec le même programme PUDC. Monsieur le Président, surveiller les positions de rente dans l'administration sénégalaise. De grâce, Monsieur le Président de la République, sauvez le Sénégal de cette autre pandémie aussi meurtrière que la COVID-19. Monsieur le Président, arrêtez cette industrie de la corruption entretenue avec la complicité de certains agents de l'administration sénégalaise. Telles sont là, Monsieur le Président de la République, autant de questions que je voudrais vous poser suite à l'arrivée de cette troisième vague de Covid-19, aussi meurtrière que dévastatrice. Je vous remercie. laaj yi maa ngi ko jëmee ci président de la république bu Sénégal le président Macky Sall ci jamono ji nga xam ne mbas mi lëmbe na Sénégal ñu am quelques laaj yoo xam ne bëgg nañu ko laaj président de la république laaj bi ci njëkk mooy lan moo waral ci réewu Afrique sowu jant yi Sénégal bokk ci ñi néew ñi nga xam ne am nañu ñetteelu vague bu coronavirus moonte bi jàngoro bi njëkkee génn Sénégal dafa bokkoon ci ñi doon wax ne ay càppaacoli lañu maanaam c'est des c'est les meilleurs élèves dans la gestion de la Covid ñu jugee daanaka ñaareelu place wala ñetteelu place ci àdduna tey ñu doon ndaare ci Afrique sowu jant monsieur le président bëgg nañu nga expliquer ñu loolu monsieur le président bëgg nañu tamit nga wax ñu ñi nga xam ne ñàkku nañu ci Sénégal ñaata ci ñoom ñoo ci amagum jàngoro ji di coronavirus donte ñàkku nañu ba pare beneen li nga xam ne bëgg nañu la ko laaj mooy ndax xam nga ne ci centre de santé yi ci Ndakaaru bari na ci yoo xam ne amatuñu maternité ndax ña fa nekkoon dañu leen génne jël lal yi jox ko ñi nga xam ne jàngoroy corona dal na leen monsieur président zone tampon yooyu ñu teg ci centre de santé yi amuñu dara daanaka amuñu matérielu respiration wàllu réanimation amuñu ko lu ñuy noyyee oxygène amuñu ko amuñu euh, manodétenteur amuñu lenn loo xam ne mun na leen jariñ ci liggéey bi nga xam ne actuellement ñu ngi koy def rawatina nag jumtukaay yi nga xam ne sax ñoom dañu ko soxla personnel de santé bi ñoom personnel de santé bu jàmbaare boobu tey jii monsieur le président ñu ngi xaar ba tey seen i ndàmpaay indemnité yi ñu leen waroon jox ginnaaw liggéey bi ñu def daaw ci CTE yooyu moo xam médecin nga moo xam infirmier nga moo xam brancardier nga moo xam ambulancier nga moo xam technicien nga moo xam laborantin nga tey ji kenn ku nekk ci ñoom jaxle nañu sonn nañu sëkkatal nañu leen yegg nañu ba ci di jot ñoom doomu jàngoro ji waaye yemu fa am na tey jii ci personnel de santé boobu ñoo xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan monsieur le président ci jamono jooju am na ay sénégalais yoo xam ne dañuy yore matériel respiratoire di dugg ci ay kër fu am ay malade di leen ko loué moonte de suñu këru liggéeyukaay wér-gu-yaram yooyu ñoom tumuranke nañu lool ci matériel boobu monsieur président bëgg naa tamit nga wax ma est-ce que taxawal nañu stratégie bu fekkee hôpital yi fees na CTE yi fees na lan mooy beneen stratégie du ministère de la santé taxawal monsieur le président leneen bëgg naa ci attirer sa attention di laaj ndax yëg nga ko est-ce que xam nga ne chiffres yi ñuy jox saa su ne bis bu nekk ñu ñuy jox ay chiffres est-ce que xam nga chiffres yooyu du chiffre yu démb nit ñu ñu koy gëmloowee parce que laboratoire bi yore wàllu délivrance su test yooyu laboratoire bi day am retard daanaka une semaine ba ci fukki fan nit mun na koo def du jot li nga xam ne moom moo di wàllu résultat wu test Covid monsieur le président ndax da yaakaar ne nit ñi gëmuñu feebar bi ah kay nit ñi gëm nañu feebar bi waaye nit ñi dañu gëmatul kàddu yi nga xam ne dafay jóge ci ay kilifa te saa su ne kàddu bu jibee rek daal di woroog ba ca des moo tax nit ñi gëmuñu li ëpp ci li ñu leen di wax ci wàllu feebar bi monsieur président ndax jàpp nga ne CTE yooyu ñu doon dalal ñi yor jàngoro ji di ay barab yu ñu aménagé woon bëgg naa président nga wax ñu lan moo tax ministre bi daal di koy tas dindi ko dindi matériel bi moonte de ci weeru novembre atum 2020 organisation mondiale de la santé avertiroon na ñëpp di leen wax ne dina am troisième vague waaye du fa yam dana am sax quatrième vague kon lan moo tax ñu dindi matériel yooyu nekkoon ci centre CTE yooyu monsieur président jamono bi nga xamee ne. yëf yi ci la gën a métti dañu gis ministre de la santé ñu ko war ñëpp ñenn ñi toog seen roq ñeneen ñi dem seen yoon mën nañu ci lim docteur Aloïse docteur Xemes docteur Bousso professeur Seydi moom daanaka bañ na ko ba bépp chiffre bu ñu génnee moom bu génnee wax safaan wa monsieur le président ndax xam nga ne Sénégal mu ngi jànkoon teg beneen jàngoro ju gën a pire fuuf coronavirus. mooy jàngoro njublan jàngoro corruption jàngoro njuuj njaaj fii ci Sénégal ndax xam nga ne monsieur le président liggéey yi ñu doon def saytu ko ci commité force Covid 19 gisuñu lenn ci njublan ji nga xam ne nit ñi dañu ko doon def ci wàllu matériel de santé boobu kon jàppal ne monsieur le président tey jii maa ngi lay wax lenn di la laaj ndaxam xam nga ko est-ce que xam nga. daaw bi Covid bi jotee ñaari téeméeri lal ak juróom fukk yi ñu waxoon ne dañu ko jënd est-ce que xam nga président loolu dañu ko abboon ci kër gi doon tabax hôpital yu Kaffrine Sédhiou Kédougou ak Touba demal xool nag ndax delloo nañu lal yooyu wala dem nañu ko jëndi monsieur président ndax yëg nga ni am na ci ministre yi koo xam ne laal na ci mbirum Covid 19. te tey jii ñu ngi koy joxañ ne jënd na ñaari kër benn almadi benn yof monsieur le président nañu ko leeral monsieur le président corona business faw nga dakkal ko monsieur le président ci jamonoy mbas mu tar ñii ministère des finances signé na benn convention ak koo xam ne homme d'affaires la Sénégal ku ne nag xam na ne moom du xëccoo marché mukk ci yaama neex rek lay dox jox nañ ko marché ñeent fukki milliards ci franc fa ci yaama di fàttali rek ne kooku ku ñu xam la nguur yi fi romb yépp xam nañ ko waaye daaw ci biir Covid bi wala laata Covid bi joxoon nañ ko beneen marché moom Serigne Gueye moomu noonu jox nañ ko beneen marché bu tolloon ci cent cinquante milliards téeméeri milliards ak juróom fukk président. maa ngi lay xamal ne jot na nga dakkal njublang njuuj njaaj wuruj ak corruption bi am ci administration bu Sénégal monsieur le président jàngoroy Sénégal jamono ji weesu na coronavirus waaye jàngoro ji tënk tey rey ñoo xam ne yëguloo ko mooy corruption bi am Sénégal lii ay question la woon yu ma ne woon fawuma laaj la ko ci jamonoy coronavirus gi nga xam ne lëmbe Sénégal jërëjëf